kon euh, dégg ngeen ko ba tey euh, muy lu am solo tontu bi vraiment leer na nañ ça s'explique tout simplement que moom gis na ne liberté totale bi nga xamante moom la ndaw ñi am mooy indi dépravation de mœurs ba pare tamit euh, négligence parentale maanaam waajur yi tamit yaratuñu <coughs> mais li ci gën a am solo def laa defal ñaari partie muy waajur yi dañoo war a yar xale yi waaye xale yi tamit dañoo war a topp seen waji te loolu alxuraan moo ko jangale eh. ndax wa qad rabbuka an la taxbudu illa iya wa bil waalidayni ihsana jamulen leen ma man yalla te ngeen bagn ma bokale len waye tamit rafetal len jëm ci seeni waajur ba tey bi laaj yonent sallallahu alayhi wasallam salaam yan jëf ñoo gën kay fa yalla salatu ala waqtiha ji waxtu juli waye nak suma birul wali <clears throat> day indi nañ ci tamit fonk biñ wara delo wat ci alquranul karim mm, atte woo ak sunna loolu xam naa ne bu fekkente ne comme ni ko seex bi waxee ñëpp tënk nañ ci loolu waajur yi yar euh, jeunes si tamit nangu top waajur defe naa ne euh, xam naa ne lu am solo lay doon waaye sëñ bi ba tey euh, ñuy continuer rek laaj tey Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul ndax amut ay soñ yoo xamante ne jox na ko ndaw ñi jamono tey jii ndax day lu ëpp da ngay gis. Euh, ki féete sax si baar bi bu naanee ba mandi da ngay gis ne mu ne jërëjëf sëñ Tuba waaye nañ ko def yëfu Baay Faal wala sax nañ ko na nga wax jërëjëf sëriñ Tuba rek dugg nga arjana yooyu tamit bëggoon nañ nga leeralal ñu lu bëri bëri foofu noonu ndax mbir bi noonu la demee wala lan la ñu sëriñ Tuba soñu pour ñu mun a tegu ci yoonu siraatal mustaqim incha allah. dugg arjana Sidi. Euh, sëñ bi dafa wax tuubali xabdun muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi hubin aw hadiyaat mu melokaan yoo xam ne doo ko gis ci ku dul murid loolu la wax murid yi ki bëgg tuuba daf laa wax melokaan yi nga war a mel te boo bëggee tuuba nag sëñ tuuba yi nekk sa wasi la boo bëggul tuuba sëñ tuuba du sa wasi la soppe nga mooy tax dama leen di wax toujours ki sukk jébbalu mooy murid ki sukkul jébbalu te naan bëgg naa sëñ tuuba soppe la mais original kon mooy ki sukk jébbalu Suku jabalu mo elan Suku jabalu mu nga njëkk ci sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. bi nga xam ne mu ngi ak yeefar ya, yi fala jeblu njëkk sum fala soso motax tax ma leen di wax ne lepp lu yonent bi defoon ci bu ko deful fukit yok na ca ñaar ba ñat ba def na lu ko upp sukk jébbalu eh, mu ngi njëkk ci sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. bi nga xam ne ñu ngi ak juliti te yeefar yi bi ñuy xeex ak julit ñetti ak fuk ak ñetti julit képp am ñetti témèr ak fuk ak ñaar bi Omar diké lañ am fuk fuk ñetti témèr ak fuk ak ñett sina Omar bim tuubé ndax sina Omar yeefar yi gëna kawe moog Abo Jaal daanaka ñoo daan andi naan di di dugg ci di agresser ka def yam lu ne motax l'islam ne la jàmbaaru yeefar moy cadre l'islam ki nek kefar pir pir pir pir bu tuubé moy jàmbaaru l'islam sina Omar. mook aboo jaal ñoo àndoon naan ba mandi ba son lool biñ dikkee dañoo tëdd kiit ba Abo Dial dafa defeenu te képp danam ci suuf Sidna Omar jaaxaan mais dañoo mandi ñoom ñaar moo tax góor ñu di ko tere mu defeenu képp danam ci suuf ndax ndab dënn bi ndab la bu ci war a dara waree dug lu mel ni leer bu dikkee nga képp day day dem yoonam moo tax góor du defeenu day teel jaaxaan wala mu tëdd wet foofu lañ ko tàmbalee sib ñu yal noone omar mandi jog deb këram fekk rakam bu jigen julit tak ko jigen ñu jek daana jël seen bop jekar uuf ko di diko ko di peñé sikimam di peñé ay karawam de ben jigen rek nu bind téré bo xamné ne nu wax ñaata kawar a nekk ci bop sayyidina muhammad ñaata karawa nek ci sikimam ñaata karawa nek ci mustajam téré bobu boko ko sax do gumba fe jigen nako def ndax mo doon peñé jekaram di ko def jël bopam rek tek di ko bi Omar ñewé dafa fekk rakam bu jigen bu uuf jekaram di ko mu yootu waa ji xëcc ko mu mel ni ngone suutu ñoom rek mu mbëkk ko mu daanu ci kaw lal ndaw si si gine Omar yaa ñàkk fayda njambaar gii ngay jaay góor ñaa nga ne ànd ak Muhammadu Rasulullah nee nañu yàlla yi ngeen di jaamu du dara boo dee jambaar demal wone ko sa saraku jëkkër sa jëkkëru rek ngay mbokk ay ñakk fu waay boo dee góor nga demal ne mu del tas jaasi waaxu wuti te boobu ci tax la nuy nodd xam ngeen tax lekkat bu ndaw yooyu nga benn ko ni rek di ci toog leket bu ndaw laa mën a wax ngeen comprendre mooy tax olof di wax séeréer di ko wax atog togg ñi olof yi di ko wax tax ci lañ daan nodd ngir bañ waa ker gee dégg nodd bi keroog ba Omar di ñëw ñëpp dañoo daw wer Muhammad ne tey nu dee tey Omar a ngi ñëw das jazem aalu mandite gi mu fanaane di waaxu di ñëw ndeke bi muy waaxu di ñëw di fuddu xol baa ngi fuddu di nal sangara sim naan bi mu agsee ci yonent bi de ko jàkk ne ko jógal wax ma dëgg Muhammad tallal baaraamam ashadu an la ilaha illa wa anna muhammadar Rasul rasulullah Umar ndawal hmm. hmm. ya Allah. kuy wax deug ci l'islam te lambo ay war barom bi ngay talal yonent bi talal ko ne ko ci deug ya la dox yalla ma yone ya mu jël tax ba ci tankam mu moxoñu mu ne Bilal jogal not ci kaw kérok la Bilal not te waxtu julli jotul pour ñu xamni l'islam amna am gan hmm. bi Umar nodé Bilal nodé kep ku yéfar bu mu fekkon nga nga sa kaasu sangara daara ci daanu nga ne das sa jaasi daw bañ ne laqat seen Omar si biir jullit yi dañu ne laa jabar nañu Omar ba jël ko ñeme wu ñoo ñam ndax xam nañ ko moom du maslaa ci yéen yi keroog lañ tàmbalee nodd si kaw ca kaw keroog la tàmbali kon jàmbaar yee far bu tuubee mooy jàmbaaru lislaam boo seetee mboole seen ñi daroon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn ca nekkul tuubeen muy Seydina Aliou menum Seydina moo nekkul tuubeen ña ca des yëpp di ngay naan sangaar ba ñu ne la Mahamed de woote ne nee na yàllaa koy nga toj sa kaas dikk tuub kenn nag dikkful loolu mooy Sidna Aliou ndax bi bi yonent bi di woote Sidna Aliou la di jàpp ci baaromam bi buy dox jot ta jaamu xerem moo tax sérif boo dégg ci Sidna Aliou la jóge ak Fatimata doomu yonent bi ñi si des yëpp kenn ku ne ca la nga nekkoon du diine mais dégg nga woote yonent yàlla mat sallallahu alayhi wasallam nga wacc la nga nekkoon daw dikk tuub l'islam noonu la demee damay léeg-léeg kaas sax léeg-léeg ñu naan yéen séeréer yi ay tuubeen ngeen ma ne benn tuubeen amut. walaay Sidna Aliou képp moo nekkul tuubeen ñi ci des yëpp ay tuubeen lañ. comme waxtu wi jot na. yaakaar ñu julli ba noppi aggale waxtaan wi. incha allah ndax it euh, day day point bu ma neex ndax ndaw ñi. Oh, voilà gëm nañu Sëñ Tuubaa gëm goo xam ne ku leen gindi rek nu dox. ku leen gindi nu dox ku leen bayit dañuy lambatu rek ba faw kon yàlla nañ ci yàlla musal. seex bi ñu ngi tollu woon rek fii nga xamante ne ñu ngi bëggoon a xam lan la Serigne Touba Khadim Rasoul digal ndaw ñi pour ñu mun a tegu ci yoonu siraatal mustaqiim mel na nag jotoon nga ci sax tàmbale bo yaa ngi tollu woon ci Seydina Omar waaye rek ak njébalu lan mooy njébalu incha allah. asubillahi mina seytaani rajim ñuy jéggalu bu baax waxtu wee jotoon ñuy joxe waxtu wi Eh, jébbalu bi ko Sëñ Tuubaa àndee sukk jébbalu bi ko Sëñ àndee jaaxaloon na ñu bari ndax ñu bari dañu foogoon ne mësta am ci lislaam ñu foog ne lu sëñ bi sos la te Sidina Omar bi nga xamee ne xeex bi metti na te jullit yi bari ci la yàlla wax yoonante bi ne nañ jaaylante ku jaaylante dootoo daw nga xam nga ne saaba yi kenn ku nekk am nga histoire boo xam ne buñ ko nettalee defoon nga ca loo xam ne yaa yi bind téere yi gën génnewuñ ko ba ci Ababacar Sadikh waaye noonu na ko yow daw ya nga dawoon keroog mu ne ko daw ya yàlla jéggal na ma ko bi bokk naa ci jàmbaaru lislaam yi ndax ñetti téeméer ak fukk ak ñett bu ñuy xeexee ay ay jun nangami junni te nangami junni yooyu am na lu tax nuñ leen toppatoo bañ mën a xeex waaye yàlla na yonent bi nañ jaaylante jaaylante mooy jox sa bopp jox sa bopp sa wasila jox sa dine, diine xam ne sama alal sama bakkan jox naa ko diine ñi ko defoon ci yonent bi yëpp ñu soog a tàmbali badar ñetti téeméer ak fukk ak ñett bu bu koy xeex ak nangamay junni war ngaa xam ne eh, am bu yàlla participer wut dana metti te yeefar yi dañoo daal di jël ñi daqa xeex ak fit fit fit def leen takker gale di rëy gëleem di xar di nag ñu di leen togal ñuy daas seen i seen seen i seen i xeej léeg-léeg jongama yi di leen topp na boo jàppee julit noo koy def mu wax ba reyin bu ñaaw la ko nar a rey ñu daka xeex ak fit dañ leen def ca kër gee def jigéen yu leen di toppatoo di leen xalil sangara di leen lakkal yàpp boobu la ñuy xeex badar la waajal badar nga xam ne bu leen yàlla di bu yàlla participer wut julit moom dootoo ko deg ci àdduna bi ci naar yi nga xam ne dañuy jël yet sànni ko ba ca kaw ñu tëb capté ko fuñ ko door foofa moxoñu ñoo ñëpp eh, nekkoon nañ ci mbooloo yooyu ku ci nekk nu dégg leen ci benn kër di leen toppatoo keroog la yoon yàlla na teel a sallallahu alayhi toog ba guddi ñu ne ko pexe mi rey na te yàlla léeg bu participer wut day ñaaw mu tëdd ci neeg bi ak ak sidna Ababacar Sadiq ak sidna Aliou yeefar yi daal di kër gi ne wax nañ ne ko ñeen fukki guddi yoo xam ne kenn dugul kenn génnul yàlla xam ne pexem yeefar yi rëy na mu xaar ba guddi mu wàcce benn aya ba nga xam ne sàcc yu mag yi ñëw ko yor buñ suyee sa buntu kër tufli suuf sa buntu ga ken du yëngu mën nañu dugg ba suli sumi sa tubay lamb sa yére luñ sa soxla ñu jël ko te doo yëngu aaya boobu keroog la wàcc comme Ababacar Sadiq ak yonte la Mohamed ak Sidina ali rek a ne ci neeg bi la aya boobu wàcc yonent bi koñ bii teg nañ fi ñu daqaxee ak fi taqee ci wer ker gi cercle ko. buñ ko cercle ba min ñu ne min wi pil nañ ko fek ci biir rey ko a ah, dëkk bi yëpp kenn mënu leen a jàpp bi min wi jotee la aaya boobu wàcc yonent bi tib suuf daal koy sandi nii ku yoroon xeec ci def nii da nga naan nelaw di xaran ku yoroon yet nga xam ne foo door dafa war a mokk da ngay xaran ñëpp di nelaw ba oma Seydina Amad sallallahu alayhi wa sallam gën ak Ababacar Sadiq ñu wàcc Seydina Aliou képp ci kaw lal bi boobu Aliou xel la wax naa la ko maanaam ci ñoom la Serif sosoo ndax mot a jaamu mu ànd ak Ababacar Sadiq romb gaa yi bëggen ñuy daw gaddaay mooy daw ñuy daw di daw di daw ba yor yor du gën makka jëm Medina bu ñuy daw a daw ba nga xam ne montagne bale am na xur wu dox ci diggante bi ñu dugg ca laqatu Sidna Ahmed boobu leer bi dugg na ko mu leer bi day dis ci nit mënul dox fekk tali bi ñu dug ñu dugg yeefar yi topp leen ci yor yor bi bi yor yor jotee waxtu bi ñuy julli yor yor ci la yeefar yi yeewu ku ci ne nii na ni ni ñu ëkk neeg bi fekk si naal wi képp ci kaw lal mi ñu top tanki, biñ topé tanki, top tanki, top tanki. ba tollu ci ci montagne xur dox ci digënté bi montagne bale né falé ñu seen tànk yoon kilomètre ak ababakar ñu yall ñu top tanki bi bay ci digg xur bi yalla participer wan ko benn pax mu dugg ci pax ma mu yalla yebal eh, eh, jar eh, jargoñ mu lënd buntu bi mu yebal pitax mu nenn fa xam nga yalla lélé bu dernier délai lay participer waxna la ko bétay ci waxtaan yalla bala ñew da nga dem a dem a dem ba dernier délai mu soog a ñëw moo mu ñu dugg ci ci pax mi Ababacar Sadiq tallal poocam ku bëgg kilifa la ndeysaan yonent bi tëdd teg ci boppam ni mu gis benn pax bu tuuti bu gën mu teg ca poocam ni bos ko bos pax ma benn jaan gen ba laal poocu Seydina Omar Seydina Ababacar Sadiq ne ko yëkkatil sa tànk ma mat ki nga xam ne moom nga uuf jaan jee wax ak Omar Ababacar de mu ne ko kii ma uuf bala ngaa àgg ci moom dangaa jaar si man mu ne ko jaan laa bu Iblis dencoon fii tey laa am téeméeri at Iblis sama fi dencoon ne bu yonent bi jaare fi nga mat ko man ku ma mat mu dee Ababacar Sadiq ne ko kii ma uuf lum lug mu wàcc xoolal Iblis kon ponkol la xur wii xamoon na ne yonent dina fi jaar mu denc fa jaan ni xam ne dina fi jaar bu fi jaaree nan ko mat def nañ le yow tooke boo xam ne ko mat mu dee Ababacar ne ko kii ma uuf bala ngaa jàll si moom jaar sama kaw. mu wax wax wax ak jande wax ak Ababacar de mu mat ko delu ci bir mom jande dangar ji yéeg di yéeg di yéeg di ba xolam fi rongon joge ci betam dal ci yonent bi mu uf yonent bi ne xifet xal ko ne ko loy joy mu ko dafa am jande ju gen fi wax nak man mu ne ana la wax neena Iblis ko fi denc tay la fi am téeméeri at Iblis xamoon na ne di fi jaar mu ne ko lol la wax mu ne mu ne ko neena ma yeketil sa ma mat ki nga uf ma ne ko bala ngaa àgg ci moom jaar ci man mu ne ku mat nga dee nee naa ko loo ko tontu nee naa ko kii ma uuf lum lug mu wàcc mu ne ko wax nga dëgg jaan ji wax na dëgg dal di dëgg ca tukaalaam dal koy jox <laughs> Babacar ne fu jaan ji yëngoo xam nga jaan bu mate nit dangar bi day dugg ci yax yi day fuddu yax yi toj nga dee mu ne fu mu yëngoo rek jëlal morso bi bomb ci mu wàcc yàlla dogal nu weyal noona ah, <laughs> jaan ji fu yëngoo guddi rek mu jox mu mu laaj soxna si aaye mu tax ko soxna su aaye rek yaa yor morso bi bu demee ba guddi jaan ji yëngu mu laaj soxna si mu bom ca mu wàcc soxna si mu war a aaye ngoon nag dafa xuloog moom ci tàkkusaan bi jigéen diggante jigéen ak jëkkër ñu werante ndaw si lakk morso ba ñu dem ba min wi jaan ji ne giriñ ci yax yi mu laaj morso bi ndaw ne ko lak naa ko mu ne ko moo tax jigéen soppal te bul woolu góor goo xam ne sa jigéen xam ne sa secret original ba ci ngay toro loolu yooyu ci bokk yi ko wane bokkul ak yi Kocc Barma wane mu ne kon yàlla kër gi ma waxtaan ak ñoom ja yonent bi noonu na ma jaan ji ku mat nga de waaye lum lug mu wàcc waaye morso bi la ma joxoon su yëngoo ma bom si mu yewa kër gi nu waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ba faj not fajar mu wàcc liggéey menum menum Ababacar Sadiq moo ci dee ci kaw lalam te jaan joojoo ko rey ñi ci des yëpp yeefar yee leen rey ci jaasi Aliou ta taaya ki mu dendal roof ko paaka be cat li gën fii sidna Aliou noonu lañ ko reyee xam ne yéefar ku naan sama xarit la xamoo li xew xamoo li xew ci boobu nag la yonent bi yàlla ne ko nañ jaaylante jaaylante foofa la sosoo mu toog ci mbooloo ba mu yàgg mu ne sa feet toog fale ne ku mën a jox lislaam sa alal ak sa bokkan ñëwal fii jaaylante boo njëkkoon ñëwee jox ko loxo foon ci jebi foon loxo bi ne ko jox naa sama bakkan ak sama alal ak sama njaboot lislaam nga dem toog na le keneen ñëw wax loolu ba ma ñetti téeméer foog ñett xeexu ba daal taxaw kon xam nga ne jaaylante comme li ma la ci bëgg woon mooy sëñ jaaylante bi mu def dik sib sëriñ ne ko jox naa la sama bopp aduna ak alaaxira loo ma diggal ma def loo ma tere ma ba ci dëgg nga ne waaye nag day laaj nga sàmm ko nag la nga wax day laaj nga sàmm ko eh, fag sa caayoo rek ne jox naa la sama bopp aduna ak alaaxira sëriñ bi ñaanagul nga ne ko maa ngi dellu kër ga Cheikh Rafal ne yaa wax yaa dindi ah waaw yaa ne sëriñ bi jox naa la sama bopp aduna ak alaaxira lo ma madah, ma def lo ma tere ma ba sëñ bi nangul la ñaanal la ñaanu nangu nga ne murit nga tay jeblu nga àggalagul sa nga ne ko maa ngi dem kër ga Seex Rafal na ya wax ya dindi te xam nga ne bo toge ne celit jeblu nga ba noppi sëñ bi dina xam ne yitte daa bari dana kay ma ñaanal la nga delu kër ga liggéeyi wallaay ndeysaan waaye da nga yakamti kon ya wax ya dindi motax bari ne murit ñu jeblu ño dindil sen bop sen njebal mhm. te xamuñu ko motax wax ak jafe toog ci sëñ bi ratatatat rek li ngay wax xamoo lu mu fekk yàq nga sax taalibe te xamoo ko jërëjëf euh, loolu moom njëbal sëñ Tuubaa ko mën sa santaane waat gannaaw njëb ah njëbalu googee jërëjëf kon yéen a ko déggandoo man moom vraiment xam naa titre bi c'est une histoire jamais racontée bii moom ñu ngi koy door a déggee ci sëñ bi muy lu am solo tamit lii mooy njëbal ñun ñëpp a ko déggandoo waaye sëñ bi fi ñu soxla nag tey dañu bëgg nga jël ci bu baax sa temps mooy kan mooy taalibe ndax taalibe dafa yem ci jërëjëf Sëriñ Tuubaa pete su rek dem wala taalibe comme terme yooyu ñuy wax nañ ko def yëfu Baay Faal ak Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridine ni mu gëme woon yàlla nit yàlla bu tol noonu ba tax na léegi sax bu nit ci bu ñuy teg dil sax wala seen yëfi caaxaan sax da ngay gi ñu ah jëwriñ kaa ñu def ko yëfi Baay Faal terme boobu tam bëggoon nañ trop parce tamit ñun dañ koy laaj comme toog nañ ci sa wet ñu nit dañ la koy laaj beneen bi ci topp soxla nañ xam dëgg dëgg dëgg lan mooy taalibe question boobu daal taalibe Serigne Touba dëgg kan la. taalibe Serigne Touba dëgg. Mm-hmm. Ah, doo ko jëlee lu dul ci ndigal yi Serigne bi digle. Mm-hmm. waaye doo ko royee ci ku dul mm-hmm. yi Serigne bi digle. Eh, benn bés la julli fajar ci njaareem ne Mbacke Diouf mu ne ko Mbacke mu ne ko julli tusbaar na ma xaar ci penc mi. moom Serigne Touba ci boppam. sëñ Malick Ndiaye gàddub xiin dug bir njaareem naa ko tedd ki sunu yaakaar tey ak ëllëg mais ku julli tusbaar bul jóge fa nga toog sunu yaakaar tey ak ëllëg dug kër gu mag jàll kër seex ba jàll ba kër sëñ Mbay Sarr ku tedd ki ne ku julli tusbaar bul jóg fa nga toog dana wax ak yéen ku tedd ki ne sunu yaakaar te ak ëllëg ne ku julli tusbaar bu jóg fa nga toog. weer na kër sëñ Mbay Sarr moo féete ni kër gu mag. wer na kër gu mag wer na ba jàll kër seex fa seex Ibra nekkoon am na ñu wax sax ne jal na ba seeseen boo jógee fii ci poste juuti bala ngaa dugg njaareem am na ñu wax ne àgg na ba foofu waaye waa njaareem yëpp daal dégg nañ ko biñ julee ba noppi Sëñ Tuubaa daa dem dimb goo xam ne moo feete woon jumaay jàppenku dimb googa ba tey ma nga njaareem bi ñuy sampi miim yooyu wër jumaayu njaareem dañ koo buddi woon sànni ko fa la ñuy wax mburngal diggante kër seex laak kër gu mag fa la wax ne iblis amna na fa ne saa yu ma ko dugg dàq ko joxoñ ko sama xalima ngal googu lay dugg am histoire yu iblis toog fa di wax ak Sëñ Yap ker gu mag ñëpp julli tisbaar ku ne toog fa nga toog si dama mbak fi malik jege si ngir jot lil ko mu ne ko motu ko tey sama baat daj fep keroog ba muy wax kenn ku ne dangaa foog ne dafa def nii si sa nopp ndax ki juum mu ne ko Mbakke am ñu fi ñëw yi jox ma seen bopp ne man lañ yaakaar ñu ngi jaamu yàlla lu may liggéeyal Mbacke Diouf ñooñu lu ma am tey ak ëllëg noo koy bokk mag ñi rëdd ne benn murit Mbacke Diouf mu ne ko Mbacke mu ne ko am na ñu fi ñëw jox ma seen bopp ne man lan yaakaar duñu ma liggéeyal duñ jaamu yàlla su ëllëgee ma wàcc leen ak yàlla seen borom mañ toppan ñaata murit Mbacke Diouf mu ne ko Mbacke mu ne am na murit yu fi ñëw ne man lañ yaakaar. waaye sëñ bi sëñ bi wax naag nun de wallaay ñu ngi may liggéeyal ñu may jox addiya waaye duñ jaamu yàlla mhm. Mbakke Juuf mu ne ko Mbakke des na leen isaab fii ci àdduna waaye bu yamal xaamee duñ dem safara duñ réeru safara xam nga jaamu yàlla sëñ Tuubaa soosu ko de ko fee fekk yàllaa ko santaane wax ko Seydina Muhammad góor yàlla bu fi ñëw ci nga dugg bi am daraja ja nga am kon jaamu yalla original la du photocopie am de ci gatal du photocopie original la jaamu yalla wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liyabuduni la yalla wax ci alquran booba Sëñ Tuubaa feeñagut ba ko yalla di wax am de ci alquran la ko wax binna nit ak jinne ak malaaka ngir ñu di jaamu ban góor yalla mo ñew ci gannaaw bu ga dindi wax joju motax xele yi ku ci gis mu yor kurus di jaamal ñu na yow nga dooj waa yow han ah, xale bu yow yor kurus da bëgg lu bax moo gën képp ab cigarette te yor kurus moo gën ngank sa sa tuxukaay te te nga doolu xasida kon gàtt nga yi nii gàtt nga lu baax la lu rafet la kooku da nga ko war a jara jërëjëf doom yow desel nga waaye dina dajeeg moromam boo xam ne eh, ngam na kurus waaye mu nga képp ab cigarette am di tox kooku wóoloor wóoloor kooku fañ ko formé formé wuñ ko ci yoon formé wuñ ko ci yoon. aleykum salaam. loolu tax na nun ñëpp nu maase xamandoo ne eh, jaamu yàlla googe Sëñ Tuubaa soñe woon daal di wax ne Mbakke Juuf mu ne ko Mbakke man am na murit yu fi ñëw sukk jébbalu jox ma seen bopp ne man lan yaakaar mm-hmm. ñu may jox addiya ñu ngi may liggéeyal waaye duñ jaamu yàlla Mbakke Juuf mu ne ko Mbakke mu ne ñooñu des na leen isaab fii ci àdduna waaye yamal xam duñ den safara duñ deg réer ma léeg nga dem ci koñ fekk fa murit boo xam ne bii daa feebar ba macha allah nañ ko jàngal jaawaratu ndax mu wàcc. ndax sonna te kal yaram yeb tu touba la al ci ndaw way jaamu yalla gam lu won te ku jaamuwul yalla do dug na, ci lañ koy isabe fi ba isabe yam warona am fale nu teg ko ko fi leen yëpp gis ngeen li ma wax murit ci koñ febara febar ba ñu naan eh, nañ ko jawar jawartu ndax mu wacc sukuna jeblu warta dem safara mais li tax yalla bind ko defu ca dara murit yooyu non lañ may leen lima li wax gis ngeen ko yéen ñep gis ngeen murit ci koñ koo xam ne sëñ bi boo amoon aaya boo xam ne boo ko jàngalee mu wàcc nga def ko ndax sonn na te deewul des ko isaab fii waaye bu yemal xëy amee du dem safara du dégriiru safara ñeenti murit sëñ Tuubaa ko lim njaareem ñëpp di dégg mu tàllal loxoom nag daal di wax ne mbake Diouf mu ne ko Mbacke mu ne pak bii ma leen woo pakku njaarem ba ma nekkee jolof la yuuxu fekk ma jolof ne ma ñetti fan a des ma bokk ci pakki safara yi ak njaareem yàlla dogal ca tubaabe ca conseil ba yàlla def fa dogalam ñu ne conseil bi nangu na ñu jële Sëñ Tuubaa évacuer ko Jurbel ndax boobu Jurbel buur buy naan sangara fa ngay naani jigéen juy jaay sa bopp fa ngay ñëw njaareem buur bu mandi fa ngay ñëw naani booy ñibbi jënd fa sangara yow bu boobu tubaab yi fa lañ nekk boo soxla fetel fa nga koy jënde suufas njaareem nag moo jooy fekk sëñ Jolof ne ko ñetti fan a des ma bokk ci pakku safara yi dogal bu ne dey lëkkoo ki xew-xew conseil ba xëy ca yoor yor ne prison bi nañ ko évacuer Jurbel conseil ba benn colonel moo leen wax ne njaareem dafa bari naankati sangara dafa bari jigéen yu pagaay di jaay seen bopp te sëñ Tuubaa buy xool jigéen ñooñu leeram day wàññeeku dongom yi nga xam ne tuutee tee ñu naaw tuutee te ñu naaw ndax murit boo ci jàkkaarlool jéba daa mel ni lamp bu ñu demee njaareem bu ñuy xool jongama yooyu seen leer day wàññeeku te kooka wax na dëgg kon nañ ko yóbbu njaareem ñu évacué Sëñ Tuubaa andi ko Jurbel mu ses kër commandant boo demee njaareem fa post ba nekk foofa lañ ko tegoon commandant bi nag bu guddee Sëñ Mbay Saar di sikar wala bu ñu añee ba noppi Mbay Saar di sikar commandant bi jabaram lakkal ko kii tax na mënatuma añ ba pare nelaw bu ma añoon damay nelaw ba deux heures ba une heure wala nangam waaye mënatuma nelaw ndax sikar yi dof bi na jóge fii soldaar yi jóg méeb Sëñ Tuubaa bagaasam indi ko kër gu mag fee jumaa ja nekk tey ba tey dogal bu ne day lekkoo ki xew-xew commanda ba jabaram moo ko ne bu ma añee ba noppi damay ses te mënatuma nelaw ndax dof bi di sikkar rek kenn ko mook sëriñ bi fi waay commanda bi gët soldaar ñu méeb Sëñ Tuubaa bagaasam indi ko fee daara kaamil nekk tey ci njaareem mu teg fa bagaas ya tambilay julli muy xur woo xam ne kenn ñemewu fa woon ñun séeréer si mbay dee lan ko daan tudde kenn daawu fa bayit kenn daaw fa bay da xur la woon boo xam ne boo fa béyee daanaka de ñu naan mbay dee fa la Sëriñ Tuubaa teg jumaa yu njaareem tey kon euh, ba tey lu am solo ngi noonu mbokk yi man sax xam naa daanaka sama jëwrin bi se si de xam naa day déplacé war a ñëw rek ndax fu moom maa ngi départ fu kenn xamut <laughs> jërëjëf sëñ bi kontaan nañ kon yéen ñi nga xamante ne yéenay dégg mbiru Baye Fall seex bi xamal na leen ne Baye Fall dëgg dafay doon ku sel di selal waaye ku dogu ku farlu ku jaamu yàlla te lépp lu mu am di koy bokk ak ñépp Baye daal mooy koo xamante ne du tux du naan te caaxaan moom bokk ci te lépp luy njaaloo tamit bokk ci boo déggee tamit taarix bi ni ko sëñ bi déggee waxee da ngay xam ne yoonu murit amul lenn lenn lenn foo xamee caaxaan bokk na ci